camarade, merci beaucoup. Merci. Elle n'est pas morte, elle est vivante. C'est la règle de base. Merci beaucoup. L'esprit ne meurt jamais, c'est le corps qui succombe, mais pas l'esprit. Bon, nous sommes actuellement ici avec le ministre monsieur Oumar Youm. Assalamu alaikum monsieur le ministre. Dakar Buzz. Vous êtes actuellement ñëw nga fii nii pour euh, lever du corps euh, à travers maanaam ci euh, yaayam ak moom tamit aussi. waaw donc euh, ñëw naa fii ci bokk ak euh, sunu sœur sunu sunu xarit xam ne aussi ñu ngi bokk parti mu siy def liggéey bu am solo euh, lii bu ko dalee ñu ko yëg ñëpp xam naa ne peut-être ni mu demee ñu ko ñëpp ñëpp dañuy ñëw bokk ak moom tiis bi ñaanal ko yàlla bokk ak moom aussi ñaanal ko yàlla xaral ko àjjana soxna si moom. dégg nañu aussi euh, ci moom jëw yu rafet rafet bi ci njëkk mooy jullite loolu lu am solo la bokk aussi ci askan bu baax euh, yar njabootam euh, jàppale leen te gis nañ jeexital bi aussi ci sunu sœur mi gis nañ ci moom d'abord rigueur morale ak sincérité dans l'engagement ak loyauté loolu yar bi moo koy indi ñu ngi koy masaw bu baax a baax xam nañu yaay li muy représenté si doomu aadama koy ñaanal yàlla yàlla xaral ko àjjana yàlla may ko xolu muñ euh, yéene bi yaay ji amoon si moom ak ñaan yëpp yàlla moom du fi jóge kuy am yërmande moo la ëpp yërmande yàlla na ko yàlla wuutu si yërmande bi jàppale ko ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa euh, le ministre euh, mën nga ko tënk en français ah je suis en tant que ami en tant que compagnon en tant que membre d'une euh, grande alliance Benno Bokk Yaakaar mais particulièrement euh, de l'Alliance pour la République en tant que camarade de parti en tant que quelqu'un qui a partagé avec euh, Madame le Premier ministre Mimi Touré un gouvernement euh, et je l'ai vu à l'œuvre comme femme travailleuse euh, sincère loyale et donc cette perte est une grosse perte pour elle c'est vrai mais pour Kaolack pour ses amis pour ses proches Nous sommes venus donc faire ce témoignage d'amitié, euh, cette présence d'encouragement et de solidarité pour lui dire que nous partageons sa peine et nous, ensemble avec elle, en union de prière, nous prions pour le repos de l'âme de sa maman, que Dieu l'accueille dans son paradis. Je l'ai pas connue, mais de, par les témoignages que nous avons eus, elle a été une dame qui a rempli une vie de conviction, une vie de foi, une vie aussi au service de ses enfants, une vie au service de l'éducation de ses enfants. Euh, et qui connaît Mimi peut-être peut présupposer les qualités qui étaient en, à sa mère. Donc euh, on voit d'elle une femme engagée, travailleuse et euh, très sincère dans son engagement. Nous prions avec elle pour que Dieu ait pitié de son âme et qu'elle soit reçue avec tous les honneurs au grand paradis, Inch'Allah. Assalamu alaikum. inna lillahi wala inna ilayhi rajiun ñun ñëpp ci suñ boroom lañu jógee te ci moom la ñuy dellu bisimilah rahmaani rahim euh, dañ fi ñëw ci tànku mbokk euh, ndax euh, bi ñu président yónnee ba pare man ak ministre directeur de cabinet Augustin Tine pour ñu ñëw représenté ko fi ak ñu délégation ministérielle bi fi nekk yëpp ci mbiru gouvernement day ma ñëw tam ci wetu sama sœur sama cousine di présidente Aminata Touré Mimi Touré nga xam ne ñoo bokk fu ñu cosaanoo di Gossas papam Pamadiou Touré di nijaay ci man euh, ñu ñëw taxaw ci wetam ndax euh, xarit du rek ci lu neex bu naxaree it ngeen bokk ko te mën nañu wax ne suñu jigéen la suñu cousine la suñu xarit la donc lii bu ko dalee dal famille am yëpp ay magam seen taawa gi ni toog sama wet ñuy jaal famille bi yëpp di ko jaal di indi njaalu président la république Euh, teg ko ci loxoom di ñaan suñu tànt bi fi jógee tante Nafisatu Sow yàlla xare ko àjjana euh, boole ko fa teg ko fa ci wetu njabootu Seydina Mohamed moom suñu nijaay Madiou Touré yëpp ak euh, mbokk yi ñu fa jiitu looloo suñu ay tànk nekk tànki mbokk euh, nekk euh, tànki it euh, kóllëre ak tànku famille ñu ñëwoon andi njaalu président Macky Sall ah andi suñu njaal ñu koy wax it ne Gossas googu ñuy bokk Gossas yëpp tey ñoo ngi ci wetu famille Touré famu Mamadou Touré ak euh, famille tonton Madiou Touré ñu ànd di leen euh, suñu tante Nafi ngeen jëf je vous remercie j'étais je suis venu aujourd'hui avec euh, le ministre euh, directeur de cabinet du président de la République ministre Augustin Tine avec euh, d'autres membres du gouvernement aussi, euh, vous verrez le ministre Omar Youm et bien d'autres, euh, au nom du chef de l'État, nous sommes venus témoigner et présenter nos condoléances à la famille de la présidente Aminata Touré, présidente du Conseil économique, social et environnemental, ancien Premier ministre de la République du Sénégal. Nous sommes venus euh, témoigner Euh, et prier aussi pour notre tante euh, Nafi euh, Sow qui a rejoint tonton Madiou Touré, son mari, son époux, euh, dans le paradis éternel. J'ai dit tonton, j'ai Madiou, j'ai dit ma tante aussi, parce que euh, tout le monde sait que tonton Madiou Touré est de Gossas. euh, fait partie d'une euh, grande famille de Gossas comme la mienne et beaucoup de choses nous lient. Et c'est au nom également de cette euh, fraternité, de, cette, euh, de nos, des liens personnels que nous avons entre nos familles et au nom également de l'amitié que nous éprouvons pour euh, Madame la Présidente et que nous sommes venus aussi. pour euh, lui dire que tout Gossas, la ville euh, de son papa, euh, la nôtre, tout Gossas également, lui présente par ma petite voix nos condoléances. Et nous prions tous ensemble avec le chef de l'État qui nous a dépêchés ici. Euh, qu'Allah, dans euh, sa miséricorde sans limite, accueille notre tante euh, Nafiso Euh, au paradis je vous remercie. Euh, defe naa suffisant hein, que saa waay wax na donc mii sunu sœur la sunu prédisseur la sunu rakk la bokk it nekk it nit koo xam ni ci réew mi ñëpp xam nañ ko liggéeyal réew mi aussi donc euh, tey sunu yaay génn àddina mënuñu def lu dul ñëw toog ak moom bokk ak moom tiis bi di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana ànd ak moom ba jusqu'à sa dernière demeure dellu si waat te encouragé et puis di. dëfal euh, njaboot gi yàlla may leen xolu muñ parce que yaay ju baax soo ko ñàkkee aussi dafay dafay nekk beneen affaire bon mais moom gàccee ngaalaama li mu waroon a dund dund ko euh, doom yi li ñu war a dund ñu ngi koy dund Mimi Touré vraiment nit ku baax la loolu rek la mën a seede ci moom ku bëgg réewam la aussi voilà. Euh, voilà donc bon. nga mun a apporter suñu yaay ji wàññeeku tey ji ak sa sœur aussi Mimi Touré. waaw c'est vrai donc dañu ñëwoon fii euh, taxaw madame la présidente ci waajuram bi génne àdduna nekkoon aussi jigéen ju ju baax ci parmi les premières intellectuelles nekkoon ñoo xam ne ils ont servi hein, loyalement leur pays hein, euh, à travers toutes les régions di Sénégal euh, donc nekkoon na ku am parcours ah ku ku jàmbaare ku intelligente dañuy ñaan yàlla sunu borom mu xare ko àjjana ah euh, ki nga xam ne njabootam des fi aussi euh, di ko ñaanal ah taasu ci barkeem voilà donc euh, di leen sant di leen gërëm. Hmm. Voilà, donc euh, on était là pour euh, effectivement accompagner Madame la Présidente e et sa famille a au niveau de, bon, du décès qu'elle a, qu'elle a eu. Hein, ça, elle a perdu sa maman, une femme très brave, intellectuelle. qui a servi loyalement son pays pratiquement à travers toutes les régions du Sénégal. Donc euh, nous, nous demandons au Seigneur de l'accueillir à son paradis auprès euh, des illustres hein, euh, de ce pays. Donc euh, voilà, nous présentons toutes nos condoléances. Serigne Papa Malick Sy di porte-parole Serigne Abou Bakar xalif général de Tidiane et di nuyu sunu mag Cerno Madani Tall ak njabootug sama maam El Hadj Amar yëpp di leen ziyaara di nuyu sunu mag Serigne Ibrahima Seck bu Serigne Talla Xaar di doomu xalif général bu Canaba et sama nijaay Mara bu Ndoy mi ngi nii taxaw ñoom samay nijaay lañu soxna sii tëdd tey soxna sii tëdd tey di sunu tànta ndax sunu nijaay moo ko doon denc di docteur Madiou Touré bokk ak sama yaay ndey ak baay e sama yaay nekk fële ba nekkoon soxna sëriñ cana ba la gën a yey ki la gën a yey ndax diggante maam Madiou ndax diggante maam Madiou ak Xaaji Saa yi ak Xaaji Saa ñëw bu mën a ñëw te bokk ci famille bi te ci famille bi ñëw nga bu mënul ñëwit bu mënul ñëwit yónnee nga yónnee nga fa tabaarakallahu fa tabaarakallahu am nañu yaakaar ci moom am nañu yaakaar ci moom ngir taxawaayam bi muy dund ndax ngir taxawaayam bi muy dund fii nag bu ñu fi ñëwee fii nag bu ñu fi ñëwee Ceerno Madani Ceerno Madani dañ koy ñaan dañ koy ñaan barke maamam ci barke maamam Seexul Xaaji Omar Fuuti mu mottali kóllëre gi mu mottali kóllëre gi diggante maam Maadi diggante maam Maadi ak xaaju saa yi ñu. ak cëram ak cëram. nga ñaanal soxna si nga ñaanal soxna si. ñu taasu ci barke ñu taasu ci barke yi. leneen loonu santoon ñu def. leneen loonu santoon ñu def ko. waaye lii nag. waaye lii nag. dafay yokk suñu yaakaar ci ki tëdd. day yokk suñu yaakaar ci ki tëdd. yàlla bu ci dara naax saay. yàlla bu ci dara naax saay. tabaarakallah li xaaju Saïd Nour wax léegi. li xaaju Saïd Nour imaam wax léegi. wax na dëgg. wax na dëgg. ñi wér. ñi wér. bareetunu moom nit ñi fii ñu toll. nit ñi fii ñu toll. la daan tax yàlla yónni yonent. la daan tax yàlla yónni yonent. wàcce téere. wàcce téere. nit ñaa ngi ci lu ko raw. nit ñaa ngi ci lu ko raw. waaye comme yàlla dafa nit yonent dootul ñëw. waaye comme yàlla dañu yonent dootul ñëw. téere dootul wàcc. téere dootul wàcc. lenn rek. lenn rek. fàttee moom yàlla. moom yàlla. jamono boo ko fàttee nag. jamono joo ko fàttee nag. mu teg la. mu teg la. loo dootul tal sa bopp. loo dootul tal sa bopp. kon nag kon nag. tabaarakallah fa tabaarakallah ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla mu jéggal nu mu jéggal nu waaye mu jéggal ñëpp mu waaye mu jéggal ñëpp fa tabaarakallah fa tabaarakallah raxas xol yi raxas xol yi yéenante jàmm yéenante jàmm ci biir ci biir ak ci biti yàlla na ko yàlla defal ci barke maam yi ci barke maam yi ak seen leer ak seen leer ñu ngi jaale ñëpp ñu ngi jaale ñëpp di jaal suñu bopp di jaal suñu bopp tabaarakallah Allahu akbar famille. Merci. Alors, camarade, merci beaucoup. Merci. Elle la règle de base. L'esprit ne meurt jamais, c'est le corps qui succombe, mais pas l'esprit.